asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokk yi ànd sàmm jikko yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara li ma dugal fii nag ñaari dagget la benn bi maa ngi ko jëlee ci constitution bu Sénégal mu am lu mu ci wax mooy article quatre vingt bi dafa wax ni les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie maanaam ndéggoo euh, yi ñuy déggoo ca bitim réew nga xam ni du biir Sénégal ñu seq ko yeneeni réew loola suñu ko ratifié ba doxal ko fu ñu ko génnee ci journal officiel rek maanaam publié publier ko loolu dafay tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi ci kaw nag boobale déggoo kañ ñañu ko séqal wala kañu ko séqal moom tamit doxal ko kon loolu yaakaar naa soxlawul ma ci jàngat kon traité bépp boo xam ne signé nañ ko ci bitim réew rek bu fekkee dañ ko séq ak réew su ko doxalee rek ñun duñ ko publier yi tamit day daal yi dox day tiim loi yi fi nekkoon waaye bu fekkee dañ ko séq comme lu mel ni protocole de Maputo nga xam ni engagement la boo xam ni réew yi Afrique yi ñoo ci engagé wu kon ñi ñu ko séqal ñoom bu ñu ko doxalee rek ñun loolu tamit dañ koy doxal te ñu ko signé woon yëpp ñoo ngi koy doxal loolu nag mooy indi mooy indi ñu jàngat xool jëmmi protocole bi ci boppam benn disposition bu ci nekk boo xam ni dafa mat a xam te partagé naa ko yi tamit ci groupe bi noonu ngeen man ko xool disposition bi mooy article bi dafa am lu mu wax dafa wax ni les états s'engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de la femme et de l'homme par l'éducation du public par le biais des stratégies d'information d'éducation et de communication en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toute autre pratique fondée sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l'homme article bi mu ne ñi nga xam ni ay état lañu réew yi nga xam ni ñoom ñoo soobu ci nangu charte bii te Sénégal nangu woon na ko 2003 ñoom ñoo ngi ñoo ngi dogu ci wane ni am nañ ak dogu am nañ ak dogu ci soppar ñi jëmmi euh, tëralin ak nosin ak melokaan yi nga xam ni taxawaayu nit ñi te jële woon ko ci seen mm, seen seen seen seen seen seen démb nga xam ni seenug dund loolu lépp moo koy tegtale kii ndey la kii bàyyi la kii ndijaay la kii soxna la ku ci nekk am cër bu mu am ci biir kër gi am ku ci pénc mi ñu ni te loolu euh, dellu ci jigéen ak góor euh, soppi googu dañ koy jaare ci euh, yar yar yar nit ñi yar nit ñi ci jaare ko ci ay pexe yoo xam ni ci joxe ay xibaar lay doon ak joxe ay xibaar ci yar ak ci wàllu communication wax joxlante ay ay ay xibaar te loolu ñu mën a yegg ci daadi di dindi daa di lépp loo xam ni jëf la ju soqikoo ci aada wala ju so soqikoo ci mbatiit mbatiit nag diine da ciy bokk foofa ju soqikoo ci mbatiit wala aada yoo xam ne ju bon la culture boobu sa diine da ciy bokk sa tradition nag moom mooy sa aada lépp lu bon kon nga xam ne ñoom jàpp nañ ci seen gis-gis ni diine dana indi lu bon aada dana indi lu bon et de toute autre pratique ne fondée sur l'idée d'infériorité ak beneen bépp jëf boo xam ni rek euh, jëf joo xam ni dañu ko sukkandiku ci daal xalaat boo xam ni góor moo jiitu ci kanamu jigéen wala jigéen moo jiitu ci kanamu góor walla boog kuy taxaw naan la diine yàlla dafa jiital góor ci kanamu jigéen wala dafa ginnaawal jigéen ci kanamu góor mu ñi kon di yëkkati kenn ki ci kanamu keneen ki walla sax ci ay luñ leen di def loo yoo xam ne danoo jàpp ne rek ni kii moo war a def lii jigéen a war a togg des ci kër gi yar xale yi góor moo war a dem génn dem nii ñu ni loolu ci mu dem ci góor ak jigéen loolu état yi dañuy engagé wu ci dindi ko mbokk yi lii yaakaar naa ni ku dégg wala soxlaatul ngay laaj lan la kon mel na ni état bu Sénégal mi ngi liggéey ci loolu ci nan la ñuy sopparñee yëf yi ba nit ñi xalaat yi ñu amoon ba xam ni kit kii jigéen la lii mooy cëram kii góor la lii mooy cëram kii mooy ndijaay kii mooy ndey kii mooy bàyyi kii yimpaañ la kii bàjjan la kii mag la ci dëkk bi ñu ni magkat dañu koy wormaal kii ndaw la des koo war a yërëm ñu ni mboole seen yooyee yépp nag dees ko war a soppat ñi lu ci dëppoowul ak xëñ na wax ak jëf yi nga xam ni waxee nañ ko ci bitim réew ca tubaab yi xalaat ko lii constitution bi daf koy dëggal wane ni kon disposition bi ñoom nan lañuy def ba harmoniser ko rek mooy seen problème waaye soppi gi moom am na ba pare kon mbokk yi ma waxte waxaat ni dafa mel ni sénégalais yi xamuñu li xew julliti jamono yi tamit yuy Sénégal ak yu àdduna bépp xamuñu toolu xare bi te loolu ku dégg sama kàddu bi ma wax ko xam nga ni bu fekkee bokk nga ci ñi may déglu yàgg ngaa dégg mool ma wax ko jullit yi suñu jamono ji xamuñu toolub xareb jamono moo tax xamuñu fañ war a dem xamuñu it nan lañ fa war a xaree ñaari jafe yi yépp dal nañu ba noppi nag topp ci ay détails ak ci jéem a lijjanti yoo xam ne ñun amaluñu njariñ euh, nit ku fakkastalu fee daanu fee nangam ak nangam loolu ñun ban njariñ lañu amal finalement dangay gis ni yi ñu war a lijjanti ba nit ñi xam ko soppi ko mi ngi nii ak yeneen yu dul yi